ñàkk a bañ a fay Aïcha moo jël connexion bi tëj ko ci néegam wifi bi Mamadou Lamine ñàkk fayda ñàkk fayda goo xamante ni ànd ci ah, parce que lan ay dañ koy santage man Mamadou Lamine dañ ne am ful ci boppam rek jéem a doon tuuti daa am ay jabar rek waaye Mama Lamine da ngay fen gis nga yow bis boo ma laalee dinaa la wax lu dëgg ndayam te boo santee sa sant baay rek ñëw laal ma waaw mais yow Ardo loo jëw da ngay tux legi wala lal yow man ngay sal Ardo dafa réew ba dof. dawir way ba xam nga ni jaay ko jogate foofu mo moy daj dëpp. kenn du jaay eh way ndaw Samba man dal man may mbamu keur gi ku jël sa avance dal, delloo ko man may sëgg sen ngeen melni ku yor sen bal taxi si nii ku pimpam jox sa morom. waaw waaw dafa doy de waxna la ko nak gis nga bo len amé conseil yo len jox ngeen teyiko pour sen bop ngeen melni ku yor sen dom ni te nag xajal ma yoon bi. Ardo mi Ardo. Dimanche sur Kéma Vision.